no caminhão.

benn 4 x ak benn euh, benn oto. interpellé mhm. moom Mouhamed Ndiaye alliance Ameth Sonko ma ne ma taxaw. Mhm. ne moom vous êtes en état d'arrestation mhm. demee ñu ma yóbbu ma ma demee far yàlla li muy def feebar bi daaneel ma fa yóbbuwaat ma principal. pour des prévisions ak euh, des soins ma delluwaat euh, fi nga xam ne moom mooy central. def ay retour de parquet pendant 12 jours yoo xam ne maa ngi retour de parquet ak euh, principal. mais euh, est-ce que am nañu woon motif kérok biñ ñu lay jàpp puisque d'après li ngui may expliquer ni dafa fekkoon yow nga jógee hôpital. non amuñu won motif parce que biñ may arrêté ma ngi yoron sama sac mu am ay papiers administratif waaw amul lenn loo xam ne bu ñuy tere la loo xam ne yoroon naa ko. amul fenn fenn fi ñuy tere koo xam ne demoon fa. donc dañ le croiser rek japp la. waaw dañ ma croiser dama euh j'espère que dañ ma topp dañ ma localiser parce que jàpp nañ ki nga xam ne mooy suñu leader muy Mouhamed Bilal Diatta comme jàpp nañ ko nag man nekk naa ndaw boo xam ne nekk naa si euh, côté à travers li nga xam ne mooy projet bi Woloñu mhm. waaw nekk ci ci ci ci mu di di xeex li nga xam ne mooy état de droit di xeex li nga xam ne mooy mhm. ak yelleef sénégalais yi mhm. li nga xam ne mooy li ma wax sànq ñi ñëpp mooy li ma wax sànq li nga xam ne mooy li ñëpp moom. Mhm. ñëpp jot ci loolu moo ñu dugaloon ci combat bi buñ ko arrêté immédiatement ñu lancé benn mandat euh, mandat d'arrêt contre moi doon ma wër léegi nag bu ma génnee ci hôpital bi ñëw ñu arrêté woon amul lenn loo xam ne maa ngi ko doon représenté comme danger si mhm. population bi. Mhm. waaw tey lan nga doon sentir ngay dem nekk citoyen sénégalais boo xamante ne nii defoo waxoo nga jékki saay ñu jàpp la loolu nan nga ko doon dundee. non dundee nañ ko si dundin bu métti waaye dundee nañ ko tamit sant yàlla parce que amul lenn lu nga xam ne def nañ ko loo xam ne lu bon la lenn lañ def bu dee lu bon la mooy bëgg suñu réew te bëgg suñu réew bu dee lu bon la dañ ci sax parce que ay ndaw lañ woon amaana yu doon nelaw le président Ousmane ko ñëw à travers un euh, benn projet bi nga xam ne moom la indi luy solution mu ñëw digtal ñu ko indil ñu ko

muy programme solution mu nekk nag lu am solo parce que au début patriote bi dafa am benn affaire bu ñu leen xamee woon. Mhm. mooy def ay campagne de sensibilisation do def ay don de sang def ay euh, campagne agricole mu nekk lu am solo loo xam ne population bi dañoo demoon ba gis seen bopp. après ñu divertir ñu indil ñu ay beneen beneen yeneen chose yoo xam ne tey moo tax ñu détourné suñu com détourné suñu combat tey jàppee ñu ne ay nit ñu violent mhm. waaye ñun doon du ñu ay nit ñu violent tey bu ñu ku mel ni man boo boo ma jiñee terroriste mhm. da mooy tooñ du ma waaw excuse may ma deux minutes Euh, ñu continuer ci li nga xamantene ne moom moo di benn programme bo xamantene ne ko doon dérouler mais jusque dama bëgg ñu rebondiraat touti moment bi nga xamantene ne sa moment détention la euh mu nekk presque une année puisque da nga né won mars liñ la jappé won ba mars bi ñëwaat ñu dog la mëna libérer lan nga lan mo la gëna marqué durant moment yi nga def ci biir prison bi. bon durant yi ma def ci prison bi metti won na mais mu nekkon euh lo xamné aussi métit bu ànd ak bu àndoon ak bànneex la parce que sàccuñu mhm. fenuñu mhm. dóoruñu alalu jambu defuñu ko comme ni nga xamné ne ñoom la ñu jiite tey jël alalu askan bi diko dundé dundee mhm. defuñu lool ñoo choisir benn parti politique bi nga xamné dafa ñëw di xéxal réewum ñu and ak mom jëluñu alalu jambu defuñu li nga xamné mom la yoon di téré kon bu ñu fa nekkee nekk na lo xamné ne lool euh, loolu bu ñu si jàppee nekk na lo xamné lu métti la mais dañ ko doon santé yalla parce que dañ ñoo xam ne tey ñun participer nañ ci li nga xam ne mooy suñu développement wu réew participer nañ ci li nga xam ne mooy suñu xeexu suñu xeexu réew li li ma gën a marqué foofu nag bokk na si benn jour bu ma toogee euh, dégg ñu ne le président Ousmane Sonko interpellé nañ ko jour boobu bokk na jour yi ma gën a métti si biir kaso bi parce que koo xam ne tey li ma wax def na 15 ans impôt domaine amul lenn lu ñu ko mën a jiiñ mm-hmm. amul lenn lu ñu ko mën a taxal ñu fu ñu jaaree ko fu nekk si jigéen ñu jaaree ko si jigéen jaaree ko si alal amul feneen fu ñu ko jaarewul pour taxal ko réussirul tey ñu di ñu ñëw jël li nga xam ne moo gën a euh, banal muy vol téléphone ne kii da doon sàcc téléphone jàmbur moom lañ ko jàppee mhm. jour boobu am naa lu ma métti trop dama xam ne sama réew wàcc na sama réew dem na si si si si

tay relaté nañ ko ci internet bi yëpp. mën nga ci revenir à touti waaw mën na ci revenir à mun naa ci revenir à parce que euh 5 jours rek avant ñu may libérer victime laa ci li nga xamné mom moy agression yooyu. Mhm. parce que ku nekk xam ne pavillon social ma nekkoon maa yor li nga xam ne moom mooy téléphone. Mhm. yi nga xam ne moom la détenu di utiliser man lañ ko joxoon mu nekk sama responsabilité. Mhm. benn jour liggéey naa ba wàcc. Euh, di woo sama papa si urgence déggante ak moom chef bi ne ma coupé téléphone bi parce que ñëpp arrêté na nga nga war a arrêté comme malgré yaa yor téléphone bi ma ne ko amul problème pourtant lii chef yi ma ko doon may mais yow jarul lii jarul nga ma koy xañ parce que nekk lu garaaw. Mhm. ñëw di di ko rendre téléphone moo koy rendre téléphone bi beneen chef bi gis boppam ne ma soo meree yaa xam soo meree yaa jaar wax ay mots yu xaw a yu xaw a déplacé. Mhm. ma ne ko pourtant amul woon sens ngay utiliser mots yooyu noonu comme ni damay dama koy wax comme ni amé amee amul woon sens ngay utiliser moo yi nga utiliser. Mhm. bi ma ko waxee loolu rendre télé téléphone won ko ginaaw bi woné ginaaw dem di julli bi mu jullee ba paré ñew chef euh, chef de poste bi woo chef de poste bi ma wooyee à ma grande surprise xaw ma yaakaar naa leneen la may doyee mu ne ma poste ma ñew poste mu yóbbu ma si wetu euh, ki bi toilette yi mu ne ma toogal ma ne ko non du ma toog. parce que benn dama feebar ñaar dama ànd ak njàpp dama doon julli kon du ma toog fii di toog sama jàpp mu ne ma noonu da toog boo toogul dama lay mënatu ma ne ko ah bon mu ne ma waaw soo toogul dama lay mënatu après par la suite mu a ma beneen chef bi dugg si brutalisé ma mu nekk guddi goo xam ne guddi gu ma métti la que sama famille métti na leen ba nga xam ne ñoom ñëpp kenn nelawul jour boobu noonu fu nekk dugg nañ fa di di ko jooy man mi nga xam ne maa fa nekkoon tamit dund naa ko mu métti ma parce que yee na sama yee na sama sama sama sama sama sama feebar. Mhm. parce que guddi googu nekk na guddi goo xam ne nelawu ma ba fajar sax ma ko fanaanoo jooy parce que ay sénégalais comme man jàpp naa ne bu ñu bu ñu jàppee tëj ñu ñu nekk seen sécurité ñu nekk si ñi nga xam ne ñun la ñu war a sécuriser yaa jàppoon naa ne. Mhm. nekkul sénégalais moom mooy toroxal. jàppoon naa ne beneen réew laa doon dem ñu jàpp ma foofu comme prisonnier ñu may toroxal. mais du sama mbokk yi nga xam ne ay sénégalais lañ comme man waaw nekkoon na lu nga xam ne xawoon na ma tuuse nekkoon na lu nga xam ne métti na ma trop waaw guddi googu bokk na guddi gi ma gën a métti tamit si prison yi bokk na guddi gi ma gën a métti parce que guddi googu la xam ne guddi gu gudd la parce que sama mbokk sénégalais comme man uh-huh. euh, ñu jàpp ma dénk ma ko mu war a veiller sama sécurité mooy brutaliser nekkoon na loo xam ne jaaxaloon na ma trop uh-huh. te aussi tamit nekkoon na loo xam ne métti woon na ma lool ma koy dénoncé di wax tamit euh, prison yi lii mu fay la DAP ak le directeur bi nga xam ne jël nañ seen matuwaay. Mhm. mais nañ gën jël seen matuwaay xam détenu ñu ngi dund dans les prisons ay lu métti lay te nit ki li la DAP buñ la sa sa yaa ngi ànd ak sa sa ak ak sa yelef ba léegi. dafa ndig mais yaa ngi ak ànd ak sa ak ak sa yelef. kon donc nañuy gën a sàmm ak ak ak yelefu prisonniers yi di leen gën a jàppale di li ñuy lekk si li ñuy naan ak si seen santé di leen gën a jàppale si loolu parce que ay sénégalais lañ dañoo def peut être heure wala ñu jiw juum ba dugg foofu noonu. kon maa ngi jaay maa ngi waxaat encore une fois nañ gën a gëstuwaat ñi nekk si prison yi. gën mhm. a gëstuwaat prisonniers yi gën leen jàppale gën leen taxawu. parce que dañoo laaj assistance bu bu mag. Mhm. waaw da jar na sax ay psychologue war nañ ko mën di jaar di waxtaan ak ñoom di leen indiwaat te nga xam ne prison lu métti la. waaw sa noonu bi nga xam ne moom nga gën a moom nga gën a jéppi moom nga gën a bañ mhm. doo ko yéene prison kon nañ gëstuwaat ñi nekk euh, si prison yi nañ gëstuwaat prisonniers yi nañ gëstuwaat administration pénitentiaire yi ñu gën leen euh, ko defal ay formation gën leen gën leen ji euh, octroyer ay ay ay ay logis ay logistique ba nga xam ne dinañ mën a taxawu prisonnier yi. moment bi nga xamanteni ni yaa ngi doon dund lu metti ci biir prison bi est-ce que il t'est arrivé une fois que nga toog regretter le fait que sax nga bokkoon pastif wala loolu daf la gën a forger. non loolu moom mun naa ne guddi gi ma gën a métti may wax ni bi ma toogee sentir liñ ma def malmené ma. Mhm. ma ba ma ba ma ba ma toog sama xol mënatu ko ma génn rongañ sax. Mhm. jour boobu boo xam ne si jour bu ma gën a bëgg a parce que de pour la patrie <laughs> de pour nous pour moment nga ne mhm. benn bi nga arrière parce que ba ci ba ci wax malgré moo d'accord parce que dafa am ay victimes. Mm-hmm. dafa am ay de sang yoo xam ne suñuy frères la ñu xam leen ràññee leen ñu dur leen bal ñu daan dee ñi ñu mal maltraité leen ba ñu dee kon war nañ rendre justice mais parce que amul benn moment bu ma si prison bu may non non non au au fini sax daf ñu daf ñu renforcer. Mm-hmm. ñu gën a le projet gën le projet. xam ne yàlla rek moo fi nekk te yàlla moom moo ñu fi indi te mm-hmm. yàlla bu ko dogalee dafay jeex wala tey jeex na mm-hmm. ñuy sant yàlla di sant suñuy waajur di sant suñuy famille mm-hmm. di sant ñëpp di leen jaajëfal waaw di wax ne Pastef dañoo Pastef Pastef lu lu lu fort moo ñu liyee lu fort moo ñu liyee ak Pastef waaw nekkul xooxatal wala tëj prison wala jaay doole mooy tax ñu reculer jaay doole bi daf ñuy gën a gën a renforcer ñu gën a bëggaat Pastef gën a gëmaat le projet te tey jii ñu ngi ko gën ñu ngi ko gëm te dañ koy gëm ba keroog ñuy am li nga xam ne moom lañu bëgg incha allah di ñaan au soir de dimanche incha allah Bassirou Diomaye Diakhar Faye nekk président de la république du Sénégal. Euh, tey nga gis ni sa mbokk patriote yi tey ñëw defal la surprise ana lan nga yëg. contentement euh, parce que Pastef mooy parti bi nga xam ne tey bu ñu jàppee nga dugg biir prison dañ topp. bi ñu jàppee di dugg bi prison. Mhm. daf ñu dafa am ñu topp ay ndaw yu Pastef dañu ñëw ndawu société civile ku ci mel ni Yolande ku ci mel ni Khadija ku mel ni keneen keneen dañu xar seen tànk tubéy ñëw di doon ñu défendre ñëw doon xool si la lañ nekk ñëw doon xool ndax ñu ngi tëdd ndax ñu ngi nelaw ndax ñu ngi lekk lekk bu baax ndax ñu ngi lépp ñu ngi ko doon xool si ñun kon Pastef bu ñu duggee bi prison bàyyiwuñu kon tey bu ñu génnee prison ñu ñëwaat encore di ñu jaajëfal nii nekkul lu ñu bett parce que mon moo waaw kon donc euh, daf ñu gën gëm lu war ne ne dëgg la nekk lii mooy mooy ànd booloo ànd defar réew mi ànd li nga xam ne jikko yi kon ñu ngi bu remercier sama famille remercier le sa ñu ma remercier waa di remercier le président Sonko remercier suñu candidat Diakhar Faye di ñaan incha allah dimanche dimanche si ngoon président bi ñuy dégg muy président de la république du Sénégal mu nekk Bassirou Diomaye Diakhar fay incha allah di ñaan Pastef Pastef Pastef jël réew mi di ñaan Pastef bu jëlee réew mi yàlla na doon naataange yàlla na doon euh, euh, euh, lu prospère yàlla na doon lu nga xam ne lu weesu ñu njort la di di di waat patriote yëpp ñu gën a booloo ànd ak seen leader Pode ser o Diogo Sacrão.